asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer juróom-ñaari fan ci rajab muy weeru ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñett juróom-ñaari fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy tere tere wattandiku moom dibéer mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ma sopp la ak sopp képp ku la sopp inni as'aluka xubbaka wa xubba man yuxibbuk allahumma inni as'aluka xubbaka wa xubba man yuxibbuk xadis bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa nee na sunu boroom dafa bind am bind njëkk muy bind mbindee fi dafa bind sama yërmande moo jiitu sama mer mu ne loolu lañu bind ca kaw aras xadis bi Buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa inna allaha kataba kitaaban qabla an yaxluqa alxalq inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu fawqa al ars rawaahu buxaari waxtu julli suba waxtam dana tàbbi six heures dix huit juróom benn waxtu yu tegal fukki simila juróom ñett tisbaar heures quarante six benn waxtu bu tegal ñeent fukki simila juróom benn tàkkusaan seize heures quarante six ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simila ak juróom benn timis dix neuf heures sept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 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñetti simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin